Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est en réalité euh, un, samedi de, jouvence, pour parler comme le professeur Sambassi. Parce que nous sommes convoqués par les jeunes pour deviser avec eux sur ce que notre pays a de plus essentiel. La survie de ses valeurs qui entraînent la survie de la République. Et voir pléthore de septuagénaires répondant à ces talents, j'allais dire, de récemment adolescents, nous procure ce plaisir de partager avec vous la mémoire qui ne sera jamais définitivement déflorée du papa à ma Vous l'avez fait de belle manière, tous ceux-là qui sont intervenus et je suis persuadé qu'il est encore dans la salle d'autres qui ont des mémoires encore plus vivantes, qu'il aurait bien aimé nous servir, et parmi ceux-là qui se sont déjà adressés à l'audience, qui ont eu beaucoup d'événements ensemble vécus. Monsieur le ministre Sambassi, Monsieur l'honorable député Mansour Jamil, je pense qu'on a beaucoup. Hein, sur l'honorable député, un titre acquis je le considère comme étant définitif. Sur l'honorable député Khalifa Baba sur l'honorable député Zator, sur l'honorable député Cheikh Omar et j'en passe, tout le monde au aura Monsieur l'honorable député, l'ancien président du groupe parlementaire, Moustapha Diakhaté. Si je ne le cite pas, ça va chauffer. Monsieur le ministre Doudou mes chers amis, je tiens du premier médiateur de la République, Ousmane Kamara. Cette histoire qui m'a touché. Il était le tout-puissant procureur général qui traquait les opposants à l'époque. Il m'a dit, je traquais à Soro et ses collègues. Et quand le président Diouf m'a nommé médiateur de la République, il m'a dit Mais Ousmane, je te veux un siège qui ne soit pas loin de ton domicile. Mais j'ai un obstacle majeur. Il y a le ministre Amad qui occupe ce local, qui a abrité son ministère, mais également la direction de l'urbanisme. Je vais voir comment il va réagir. Sitôt interpellé, Ahmad lui a dit, mais il n'y a aucun problème. Je m'en vais le voir pour qu'il vienne occuper le local qui lui plaît. Et il lui a laissé occuper le majestueux local qui a abrité la médiature jusqu'il y a deux ans et demi, effaçant du coup tout ce qui aurait pu être constitutif de rancœur, en tout cas pour nous, qui pensions que l'animosité est une denrée éternelle dans leur vie politique. Certains d'entre vous étaient là en décembre 2011, lorsque l'Alliance pour la République organisait sur Djamalai euh, son congrès d'investiture. Il était à la tête de tous les opposants qui avaient décidé de faire banque avec l'actuel président de la République ou de lui venir en sympathie. Dans un élan dont je ne pouvais pas imaginer la conséquence, je me suis surpris à l'appeler. À présent, on va donner la parole à M. Ahmad Dansofo, Khalif général Koulou opposant. Quand il est monté en scène, son regard me disait long parce qu'il avait senti quelque part avoir été consacré, mais que la relève était en train de s'opérer. Je pense que la jeunesse doit savoir ça et le garder en mémoire à chaque fois que nous pensons à lui. Troisième élément pour le saint Lucien que je suis, quand je vois l'enfant de Kibou avec mon passé glorieux à travers le monde, avec divers choix de lieux qui auraient pu accueillir sa dépouille et prier pour lui tous les jours, faire de son tombeau une chapelle, décidée d'être enterré à Saint-Louis du Sénégal, je me suis dit, en voilà un qui nous doit encore quelque chose. Il nous en a joué beaucoup de tours, mais celui-ci, il doit nous dire en quoi cela a consisté. Je cherche encore une réponse, je ne l'ai pas. Peut-être qu'un jour, M. le ministre Ambassi nous délivrera ce secret peut-être que vous avez dû partager avec lui quelque part. Aïda, tu as été formidable. Sans relâche, tu nous as conviés et avec enthousiasme, nous avons répondu. Ton adresse est riche d'enseignements. Nous ne sommes pas venus te prodiguer quelques connaissances que tu nous sais déjà. Mais à t'écouter, je pense que les notes que j'ai prises et donc je à lire, à lire et à relire sont suffisamment éloquentes de ce que nous pouvons tranquillement vous passer la main. La deuxième chose, c'est quand on était dans la grande cité et qu'on était à Paris euh, et il venait de la Tchécoslovaquie, mais on était dans la grande cité. Un jour, euh, on était en réunion comme ça le bureau du PAI, du MEPAI, du mouvement des étudiants du Parti africain d'indépendance. Et il nous a posé la question de savoir euh, est-ce que Khamien la Comme il était sur l'international, on, croyait que Minidek si hôtel est quoi. Est-ce que hôtel Bimay Tawal kan Nous sommes tous sommes du Vous n'êtes pas vigilants. Je peux être financé par la police internationale par les renseignements généraux français et oto bii aussi ñoom mën nañ ma ko jox ma ñëw rek dugg seen biir ngeen yaatal ma ma commencé di traiter des questions du parti et des questions de la clandestinité ñaari aspect yooyu rek laay joxe mën naa si wax nag ba ëllëg ngeen jéggal ma rek xam naa ne le temps est limité wasalaamualeykum wa rahmatullahi pour un bon fonctionnement de la République sénégalaise, je pense qu'on a l'obligation de respecter d'abord nos institutions. On est un pays démocratique, ça on n'en disconvient pas, mais démocratie ne signifie pas anarchie ou indiscipline. Il faut que la jeunesse comprenne que l'heure est à la convergence d'idées et non à la divergence. Au moment où on parle du pétrole au Sénégal, au moment où on nous voit comme un pays en voie de développement, je pense que la jeunesse a un rôle central à jouer dans, dans cette situation particulière. Et aujourd'hui, je me réjouis de voir une jeune, notamment une femme, prendre une initiative aussi belle pour regrouper toutes les jeunes générations que nous sommes, que ce soit de l'opposition, du pouvoir et de la société civile. Et aujourd'hui, au-delà de nos divergences politiques, nous avons vu que nous avons qu'un seul intérêt, c'est le Sénégal, et nous avons l'obligation de travailler pour le Sénégal. Exactement. Donc, fonctionnement du parti, waaw di rafetlu d'abord initiative bi ndax euh, sunu sœur moo ko jël ñëpp xam nañ ni le leadership de Aïda actuellement sur la scène politique est incontestable mu nekk ndaw nekk jeune tey mu am xalaat bu toll nii dajale li nga xam ne mooy la jeunesse sénégalaise tey ñi fi toog ñëpp. doo xàmmee ku pouvoir doo xàmmee ku opposition wala ku société civile ñuy waxtaane li nga xam ni mooy euh, perspective lañ mën dégager pour sunu ëllëgu réew te tey wax ji xalaat yi rafet mais man li ma jàpp que pour Sénégal am socle pour Sénégal nek le pays de développement bi nga xam mom lañuy la ñuy sous il faut que ñu respecter d'abord nos institutions ñu ngi ci euh, demo dëkku démocratie mais la démocratie comme nima koy waxé du yakh du xalab du renier sunu passé parce que nous sommes un pays bo xamné ne mën nañ ko citer comme exemple ci Afrique ak ci monde bi parce que ko am réew bu melni Sénégal mosoo am coup d'état mosoo am yenn violence yi foog naa jot na tey ñun jeunesse bi ñu xamné am nañ rôle bu maga mag bu ñu wara jouer ci jamm boobu nga xamné mom lañ nekkon di dund demb ak barki demb ndax tay Sénégal bu yaaxoo ñun la yaaxal té tay lima jaaxal moy euh, jeunesse bi am nañ volonté am nañ engagement mais parfois dañuy réer ci repère alors que repère yi ñu ngi fi il faut ñu tok di waxtaan ndax consolider li nga xam mom lañ am muy valeur yi nga xam Sénégal jëmbat nako muy jamm muy valeur waxtaan muy valeur cultiver li nga xam moy le brassage culturel les valeurs culturelles li dem ak dikk bi nga xam xamé nañ ñuko ci affaire ethno tay débat bi dafa ubbeeku ko bu bari mais liñ ci retenir rek moy que volonté amna ci jeunesse bi et dañ naan la jeunesse c'est l'avenir de demain foog na tay initiative bi mu jël c'est un départ bo xam meun nañ ci dindi yenen perspective pour jëmele Sénégal kanam merci beaucoup merci. madame Sodo honorable ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu. waaw ma leen di nuyu di len ziar. waaw ñu bëggoon xam rek tay sa sa téway fi tay lan moko waral et puis sànq gis na nga def discours bu extraordinaire est-ce que mën nga ñu résumer euh, discours bi nga def sank waaw euh, discours bi ma euh, def sànq dafa tënku rek si euh, li ñu ne sunu république dafa nekk en danger mën leen ah comme te jot nañ ko jàngat léegi nag nañ joxe solution yi parce que dama jàpp ni événement 3 bu 8 mars yi tàngoon na torop léegi ñu ne lan lañ war a def pour que ndaw ñi gën a gis seen place moo waral tey ñu ñëw fii ci ndogu débat bi

mooy tey pour nga am liggéey dañ lay laaj cinq ans d'expérience professionnelle alors que yaa ngi door a pare sa jàng amuloo xëy na kàttan bi war wala xam-xam bi war pour nga am le premier emploi ñaareel bi mooy tey boo jëlee secteur informel nous plus de 90% de l'économie sénégalaise. Nous avons dit que nous avons nous avons beaucoup que nous avons République. nous avons beaucoup République. Digeni, tay ñom bokku nañ ci ñi fi ëpp ndaw ñi plus de 70% depuis 1960 nous ngi débattre ci dëkk bi donc jotna tay ñu wax nit lan lañ wara def pour trouver ay solutions jàpp naa ne waxtaan lu baax la mais waxtaan bi nag dafa waral a lalu ci ay ay doxalin yoo xam ne bu ñu ko defee mbirum chômage bi mbirum ñàkkum liggéey bi mbirum immigration clandestine bi dinañ ko weesu parce que depuis ay at ci réew mi ñu ngi debaa ñu ngi debaa ñu ngi débat mais gisuñu guñu bunt bi donc nag tey ban bunt lañ war a xàllal ndaw ñi

honorable yow lan nga gis ne yow lan nga jàpp ne loolu moo war a nekk solution d'urgence bi. man li ma jàpp à chaque fois dama koy wax xëy na président moom lañ dénk ngir mu jiite mooy njiitu réew mi mais mm, nee nañ lépp luñ def te woowuñu la dafa mel ni dañ ko def sans yow moo waral ma ne tey suñu bëggee ndaw ñi xëy na am seen place bi war ñu commencer par une par am une politique de jeunesse. xayma boo xamante ne dinañ ne document këyit xaatim boo xam ne fii lañ bëgg jëmale ndaw ñi mais liñ seetlu mooy bu immigration clandestine amee président ñëw ne dafay teg comité d'insertion des jeunes tey bi bi ndaw ñi génnee le 3 ba le 8 mu ne dafay def euh, concertation mais jàpp naa ne concertation moom décision bi warul rek jugee ci moom dafa war a woo kuréel yëpp ñu ñëw toog ñu wax ko ñun li ñu xalaat pour que ñu mën ci génn ben ñaarel bi moy ñun ñi nga xamné ñoy jité jiite dañoo war a askan bi parce que mënu la jox auto jox la essence di la fay weer té yow nga tok ci sa gunnaanaat wala nga tok ci sa teyaay bakken rek fatte askan bi il faut ñuy wacc sur le terrain di dem di wax ak nit ñi di ak ñom di xam lan mo leen metti pour que ñun buñu démé fiñi nasé ak fiñi noccé ñu mëna interpeller ñi nga xamné mom lañ dénk bop pour ñu mëna décider pour le compte du grand public. sama dernière question mooy euh, dañuy gis ne ñun Sénégal su fekkee président bi dafa joxe dafa joxe euh, euh, exemple joxe xëy na parfois président man dama koy yàgg di wax ni daf ñuy war di wax si kàllaama yi ñu dégg bi ñu ñu jiite dañ war di wax dëgg mais tey damay joxe exemple bu ndaw rek. xam nga dañu naan dañoo nekk ci période mbas mais gis nañ fi ay meeting gis nañ fi ñoo xam ne ñu ngi woote mbumbaay ak mbaay alors que respecté wuñu benn mesure barrière ñun depuis un an ñi ngi am benn plateforme boo xam ne dañuy xeex mbas bi jotuñu dërëmu état mais bu ñu gisee yi encouragé wuñu askan bi tey exemple ndaw ci Covid 19 bi dañ ko jàppee ay naxe mbaay parce que dañuy gis ñii di di di gundaandaat ñii di noos wala ñii nekk si lu leen neex. fàtte ne sax mbas am na benn ñaareel bi euh, dama jàpp ne euh, njiit yi yërëmuñu askan yi comme ni mu waree waaye dañuy yàgg dañ ko yàgg wax yàgg ko jooy ñu ne rangoñu ñu la mooy cimetière buur loolu nag dafa war a dakk et ku déggul message bi nga xam ne ndaw ñi ak askan bi joxe nañ ko le trois jëm le 5 mooy dootuñu nangooti benn politicien di ñu tenir en otage dootuñu nangooti kenn di toog di ñu tong di wala ñuy tong-tongee suñu alam sénégalais yi léegi dañuy bëgg am un un regard si seen i mbir naka lañ koy organiser si naka lañ koy gën. Euh, li nga moo war a nekk le tey pour que tey population bi nga xamante moo nekk ci suuf loolu. waaw euh, li ma jàpp mooy il faut que waruñu rek toog fii dakaar di tracer loolu président bu joxee orientation bi. nit ñi dañoo war a wàcc sur le terrain faram fàccee ko expliquer ko joxe opportunité yi bu ñu joxe tey damay joxe rek benn exemple bu ndaw am na lu ñu naan euh, convention état employeur pour mu ngi nekk direction de l'emploi ndaw ñu bëri xamuñu ko xamuñu ne sax da ngaa war a enregistré bu fekkee amuloo liggéey li ñu naan euh, un certificat du chômage ñu bëri xamuñu ko tey yooyu noonu la ñu war a gën a wàcce benen bi moy am ay agence yu am fi nit ñi dañ japp ne DER par exemple tay mënuloo gis ku né man DER financer na ma DER tay dafa wara a génn parce que l'argent du contribuable lañ ko jox mu ne ah man kat xaalis biñ ma joxoon nattal ma ko lii ak li la ci def li ak li mo bax li ak li mo bon li ak li lañ wara joyante mais buñ togué rek naan financer nañ financer nañ japp ndaw ñi tamit japp ne financer wuñu financer wuñu amul benn njëriñ. merci beaucoup.